affaire yi moo xaw a compliqué xaw a doy waar rek parce que weeru koor bi affaire bi dafa tombante ak weeru koor bi bëri ay jafe-jafe bëri ay gàllankoor am carte nañ dem woote ji rek ñenn ñi nag xam naa ne nag seeni problème carte moo tax ñu bañ a woote jeeg yooyu noonu ak bettaay beeg koor geeg affaire yooyu noonu mais ku si am sa carte rek mun ngaa dem woote ji. fii Kaolack laay woote xam naa ki may wooteel. non non du ma voté fii mais mais par exemple voté xam naa fi may voté Dakar. ay citoyen ay Sénégal lañ. bien sûr par rapport pour voter en tant que citoyenne en tant que sénégalaise. man maa ngi voté école Ndorong Touba Ndorong. fii ci la laay voté. man maa ngi voté école Jalañ bureau 3. Kaolack waa fii Kaolack waa incha allah. ragale féete day xañ a sa grand. waaw laajte Diomaye moom moom la ñu voté. man Serigne Boubou mooy sama candidat. war na war nañoo mën a am président boo xamante ni ndongo daara la te dafa jàng alxuraan ba mokkal. man président Serigne Boubou laay voté. ànd naw la ànd liggéey yokk ba yokk dañoo bëgg a yokk bëgg développement bëgg changement. am naa capacité yi am na compétence bi am na confiance bi. non loolu moom sa privé <laughs> non loolu c'est privé. ñu si bëri nag liir naa seen programme franchement am na ci su bëri rafetlu lañ seen programme wax dëgg yàlla mais nag euh, pour bu dee man moom wax dëgg yàlla sama candidat doy na ma quoi. voter devoir la. devoir si citoyen nit ki nekk na nga war a parce que loolu nga am ci sa réew tànn yow te yow yaay xool ki léegi neex nga tànn ko. kon kay dañu war a voter non loolu c'est secret moom entre nous c'est secret. dama ne képp ku am carte d'identité nga xam ne am nga def nañ ci da nga war a voter amul non votant demal nga voter ji te booy vote ji nañ fexe dindi fi système bi fi ne système bi fi ñoo ko xeexoon ñoo ko xeexaloon 2012 aller ak retour laa ko woteel mu teg def def ñu lim ñu def nañ ko fi fexe dindi tegaat fi moroomam képp koo xam ne tëdd nga ne la dama voter ji suba lu ñu dal ëllëg yow la. parce que carte d'identité yi pour ñu voter la képp ku si am carte d'identité pour voter demal nga voter si jàmm ñëpp si jàmm bu ñu def violence la bu def dara surtout suñu yaay surtout ma suñu papa yi. am yar am teggin sans violence amul takk baraza amul dara amul yuuxoo amul photo amul dara lépp ñu teg ko si discipline c'est le meilleur sa gañ. nañ teel teel bi am na solo teel a ñëw am na solo sañse te bul coow képp ku lay provoqué ci ay coow bu ko ci fekk si na nga ko moytu te aussi tamit nañ wax lu am solo. ñi nga xam ne dañuy voté enveloppe bi bu ñu ko collé soo xasee dugal bulletin bi ba pare bul collé enveloppe bi man nag damaa far président Serigne laa faral ànd nawle laa bokk te yàlla nañu yàlla may ndam. ñu ngi ñaan nañu woote ci jàmm quoi waaw que le maire gagne aussi tamit. yàlla mooy fal nguur moom yàlla yàlla yàlla yàlla mooy fal. dem voté ji ñibbi toog xaar ñu noogu ñu jubile